kanamu Sénégal tey kenn mënu cee génnee suñuy xool diine sénégalais yi mënuñ cee dindi lislaam te kenn du xool lislaamu Sénégal ci àddina dina ko xebe ba tax na ci li nga xam ne mooy tourisme bi ñu président de la république dénk jox ñu ci ay instruction bokk na ci ñu xool ay pexe yu ñu développer le tourisme religieux loolu nag dañ ci lëkkaloo ak ay experts ci domaine bi yu bokk ci communauté confrérique ak religieuse yëpp nag ci Sénégal ñu defal leen séminaire ci ñaari fan ñu waxtaan ba mu am benn feuille bu ci war a dégager ñu war a organiser un forum dans les prochains mois incha allah mais ci biir liggéey boobu nag tàmbale nañ ko déjà gannaaw biñ ci sàkkoo ndigal ba noppi tàmbale nañ ko ak waa Layeen lëkkaloo nañ ci ay partenariat mais ci appel bi tamit ñu ngi ciy lëkkaloo communauté bi pour liggéey ci donc dina doon yoon suñ demee ci bésu màggal bii nga xam ne bokk na ci xar kanamu bu gën a taaru macha allah ci li Sénégal am ci li muy wane ci àddina ñu war fi ñëw rencontre communauté bi siyaar xalifa bi siyaar kilifa diine yi fi nekk yi ñu mën a gis yëpp yaa xam euh, sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides ñi di ko ñaanal yàgg fi lool te ànd ak wër waaye tamit Cheikh Bass Abdou Khadre mii nga xam ne ku ñëw Touba war na ñëw siyaar ko ñu jaar tamit ci sëñ Abdou Lahad Gaïndé Fatma nga xam ne moom sunu kilifa diine la waaye am na lu ñu bokk di ci yëngu ah, noonu tamit naka sëñ Cheikh na ak sunu sangu bopp nag muy sëriñ Cheikh ah, Mbacke sëñ bu Mbacke ah, nga xam ne ñooñu ñëpp daal jaboot gi yaatu na ñu siyaat leen te tege leen ci bés bu mag bi nga xam ne bësu senegal lépp la lii daal moo doon tànk yi ñaan leen ñu ñaanal senegal ñaan fi jàmb jàmm yàgg fi sax ñu yàgg ci jàpp sunu kilifa yi nga xam ne ni ñu taxawee ñoom ñoo ñu ci tàggat ak seen maam ak seeni i baay yar ñu ci ba ku nekk su xoolee sénégalais tey naw ko ci diineem naw ko ci taxawaayam du point de vue républicain ak culture de paix jërëjëf